الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم يا همة شيخي دوري لنا بهذه المهدر ولتعتفي بنزرة تاج لنا بظفر رضي الله تعالى أن صحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة illaa billaa alil azim seen yóbbalu koor ñëwaat nag yéen ci hadisul ci muxtaarul hadis yonent bi sallallahu alayhi wa wax na ne ci xarfu hamza ci muxtaarul hadis ci hadis juróom-ñaar fukk ak juróom-benn yonent bi ne iza akala ahadukum taaman falyazkur ismallah taala فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوله فليقل بسم الله على أوله وآخره yonent bi wa sallam nee na kenn ci yéen suy lekk na tudd yàlla kenn ci yéen bu tiimee ñam di ko lekk na tudd yàlla mu ne su fekkee mu fàttee tudd yàlla ci njëlbeen gi mu ne na tudd yàlla rek même ci mujj gi kon nag na tudd yàlla ci njëlbeen ga ak ci mujj ga jaam dafa war di tudd yàlla lu bari ci li muy def surtout nag mu tàmbalee ko bismillahi rahmaani rahim su si noppee na tuddaat yàlla beneen yoon mooy mu wax alhamdulillahi rabbil alamin lépp lu nit di def rek na ko tàmbalee turi yàlla waaye na ko jeexale itamit turi yàlla lépp loo xam ne tàmbale woo ko turi yàlla loola barke du ca am mukk waaye loo tàmbalee turi yàlla barke dana ca am loo tëjee itamit turi barke ga dafay sax waaye loo tëjewul turi yàlla barke du ca sax moo tax nag jaam bi na wakkirlu ci yàlla di tudd yàlla ci lépp lu muy def rawatina buy lekk ndax su booba yërmande mën na am ci lekkin wi ndax lekk tam nekkul lu yomb ndax léeg-léeg ñi te ngay am accident ci lekk ak lekk nga xam ne mënta ñàkk ci jaam bi il faut mu lekk waaye suy lekk na tudd yàlla ndax li muy lekk man koo mën rees ak jàmm beneen yoon yonent bi sallallahu alayhi wa ne iza akala ahadukum falyakul bi yaminihi wal yashrib bi yaminihi walyaxus bi yaminihi wal yuuti bi yaminihi sallallahu alayhi wa sallam lii ci éducation la bokk yonent bi sallallahu alayhi wa su ngeen di lekkee na ngeen lekkee loxol ndeyjoor su ngeen di naan na ngeen di naanee ndoxee ndoxi eh, loxol ndeyjoor su ngeen di jël dara na ngeen ko jëlee loxol ndeyjoor su ngeen di joxe dara itam na ngeen ko joxee loxol ndeyjoor jullit ndeyjoor la war di jëfandikoo kenn du lekkee beneen loxo bu mooy ndeyjoor kenn warul ta naanee beneen loxo bu dul ndeyjoor kenn warul jël mbaa ngay joxe ci beneen loxo bu dul ndeyjoor xanaa nga am ngant ci loxol ndeyjoor bi su boobaa inna darurata tubihul maazuraatu loolu mooy la cay nekk moo tax nañu yar suñu doom yi ci lekkee ndey loxol ndeyjoor ak joxe loxol ndeyjoor xale yi ñu ci ëpp loxol càmmoñ lañuy nangoo nangoo buñ leen yónnee bu ñuy joxee loxol càmmoñ lañuy ñuy joxe buñ leen di jox loxol càmmoñ la ñuy nangoo loolu nañ ci yar suñuy doom parce que nekkul li gën doomu aadama dañ koy yar yar bi gën a rafet muy yarub lislaam te bokk na ci di jëfandikoo loxol ndeyjooram ci lépp loo xamante ne yiw la lépp loo xamante ne jëflante la mu fexe di ko jëfandikoo loxol ndeyjooram kon nag nañ ko saxal même ñun mag ñi léeg-léeg nit di la jox joxe la loxol càmmoñ wala nit di nangoo ci yow dara nangoo ko loxol càmmoñ jullit du def loolu jullit buy joxe na joxe ndeyjoor suy nangu na nangoo ndeyjoor suy lekk na lekkee ndeyjoor yonent bi wax ne إذا أما أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم صغير والكبير والضعيف والمريض والمريض وذا الحاجات وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء صلى الله عليه وسلم yonent bi nee na kenn ci yéen bu jiitee mbooloo ci julli yonent nee na oyofal ndax ci biir mbooloo ma am na xale bu mënul taxaw taxawaay bu yàgg ci biir mbooloo ma am na mag moo xam ne taxaw taxawaay bu yàgg ci biir mbooloo ma am na ku néew kattan koo xamante ne dafa néew kattan bi mënul taxawaay bu yàgg bi ci mbooloo ma itam am na ku wopp ku feebar koo xam ne moom itam mënul taxawaay bu yàgg ba wala toogaay bu yàgg bi waaye itam nekk na ci biir mbooloo ma koo xam ne dafa am aajo dafa am soxla bëgg a doxi ay soxlaam bëgg a doxi ay yitteem te alquran dafa wax ne fa iza qudiyati salaatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi su julli bi jeexee rek tasaaroo leen ci kaw suuf si ngeen dem wuuti lu ngeen am kon nag loola soxla yi la cay junju kon nag boo jiitee na nga ne am na koo xam ne soxla mu ngi am soxla na julli ji pare mu dem joxi ay soxlaam kon yow na nga gàttal julli ji bañ koo guddal léegi nag wa iza salla li nafsihi ah fal yutawil su fekkee yow yaay naafilaal sa bopp xam nga sa kàttan fi mu yem xam nga sa doole fi mu yem xam nga li nga man xam nga li nga xattan bu ko defee nag bu la neexee nga guddal comme nim la comme nim la comme nim la soobee waaye ñu ëpp ci jiitekat yi bu ñuy jiite nit ñi dañuy préféré julli bi gudd te ñoom kese suñuy julli qul huwallaahu ahad sax tayal nañ koo jàng inna aataynaaka kaw kawsara rek la ñuy reyee nit ñi ci ne julli ji nagaaw yaa ngi dégg ndax ñoom ñoo jiite seen bopp bu ñu jiitee mbooloo ma nag dem jëli ay baqara ak ay ali imran ngir guddal julli ji duhut noona yow jàngal saar yu gàtt ci julli ji saar yu digg doomu ci julli ji yaa ngi dégg su ko defee mu oyof ci ñi nga jiite ñu mën a joxe seen farata mën a joxe seen nawaafil te fekk duñu ci loroo yaa ngi dégg yooyu tamit nga mën ko defee ni mu gën a ni mu gën a teeyee léegi nag su fekkee ne yow mbooloo ma xam nañu ne fii kat comme ni ko yeneen jumaa yeeg yeneen jàkka yi di defee kaamil la ñuy ñoom ñu xam ko a ah, bu boobaa bu ñu ñëwee naafila si bu guddee ñoom war nañoo xam ne dafay gudd ndax loolu mooy seen programme maa nag julli farata bi moom ngir yàlla dimbale nit ñi rek ba nga jàng ci saaru yi digg doomu ba ñëpp mën a joxe seeni farata te fekk doo ci lor kenn bu dee naafila la ku mu neex nga xaar ku mu neex nga dem naafilaal sa bopp parce que naafila naafila la tudd yaa ngi dégg du loo xam ne soo ko deful da cay am bàkkaar duhul loo xamante ne soo ko faatee su la faatee danga koy fay waaye bu dee farata la soo faatee waxtu bi danga koy fay waaye tamit dëgg-dëgg bëgg nañ nit ki di ko defee ci mbooloo moo tax nag yow soo jiitee mbooloo mi na nga bàyyee loolu xel yonent bi sallallahu alayhi wa nee na isan faxta mar'atu min bayti zawjiha gayra mufsidatin kaana laha ajraha bima anfaqat wa li zawjiha ajruhu bima kasaba wa li mislu zalika laa yanqusu baaduhum min ajri baadin yaa ngi dégg shay'an yonent bi sallallahu alayhi jigéen bu financé ci këru jëkkëram alal joo xamee deful ko ngir yàq mu dana am pay waaye tamit jëkkëram dana am pay ci li mu faggu waaye ki nga xam ne tamit mooy mooy garde alalu kër ga dana am pay bu yem noona te kenn ci ñoom du wàññi payab keneen ka jigéen ci biir kër dafa war di dimbale borom këram di ko jàppale lépp luy xéwénal alalu kër ga mu di ko def moo xam lu mu faggul boppam la moo xam alalu jëkkëram la jël dimbala si jaam ngir yàlla mu ne si boobaa dëgg-dëgg dana am pay jëkkëram dana am pay kañ dénk caabi alalu kër ga itam dana am pay te kenn ku nekk ci ñoom du wàññi payab keneen ka hadiisu juróom ñetti fukk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne izaa tasaaba ahadukum falyadaa yaddahu fiihi wala yaawi fa inna sheytaana yadhaku minhu yonent bi nee na kenn si yéen buy ëbbali na jël loxoom teg ko ci gémmiñam waaye tamit bu mu yuuxu si ëbbali gi mu ne ndax saa yi nit di ëbbal yuuxu rek seytaane da koy reetaan xam ne domine na ko moo tax bu ngeen di ëbbali jël leen seen loxo yi ngeen taf ko ci seen gémmiñ yi waaye bul ŋaang rek jëmale ko fu kenn xamul bul ŋaang rek jëmale ko fu kenn xamul wala nga yuuxu loolu seytaane bu ko déggee dafay reetaan dafay xam ne kii moom commencé naa koo dugg yonent bi sallallahu alayhi wa nañu loolu beneen bi mu ne iza tamma fujura abdin malaka aynayhi fa baka bihima mata shaa mu ne nit saayu mbonam matee malaka aynayhi mu moom ñaari gëtam fa baka bihima mata shaa mu ne dana jooy ci ñaari bët yi kem lu ko soob nit saa yu defee mbon rek fu muy mujjee mooy ay jooy ndax buñ la jàppee ay jooy ngay mujjee bu yomal xiyaamee ay jooy ngay mujjee moo tax nag mbon jarta faggu jarta def jarta jege fekk yaa ngi ànd ak sa xel beneen hadis yi Yonent bi sallallahu nee na ida taraka al abdu du'aa li walidayni fa innahu yanqatiu anhu rizqu yonent nee na doom wala jaam saa yu bàyyee di ñaanal ay wayjuram rek wërsëgam commencé arrêté nit saa yu tooge ñaanala tut ay wayjuram arrêté ñaanal ay wayjuram rek wërsëgam commencé arrêté moo tax kenn ku nekk ci ñun nay ñaanal ay waajuram moo xam ñu nekk fi moo xam ñu bañ fee nekk na leen jagleel hadiya bés bu nekk mu di leen di mu di leen di ñaanal limaamul junni di romb na ci benn armel moom yàlla def koo mayoon ñii nee na limaamul junni di la ñii nee ñii nee nañu sirru suqitiyu la ñii nee ñii nee ñii nee nañu suyutiyu la waaye lu mu ci mën doon daa wali yàlla boo xam ne dafay wax ak niw yi mu romb ci benn armel benn waaye kar ko ne ko eh, yow suy tiiw boo demee dëkk bi nga jëm nii am naa fa doom boo demee ne ko coono gi ma fi daj moom moo ma ko yóbbee ndax bi ma fi tëddee ba léegi masut ma yónnee hadiya suy nee na mu ngi gis waa ji ci melokaan boo xam ne sonn na lool wuute na ak ñeneen ña fa ne ba mu demee laajte waa ji mu gis ko mu ne ko sa baay moo ma yóbbante ci yow nee na dee koy yónnee ñaan ndax ba mu fa tëddee ba léegi yónnee woo ko ñaan suñuti ba mu delluwaatee di ñibbi gis ne waa ji situation changé na mu laaj ko mu ne ko sama doom bi ma la yóbbante woon dafa commencé jëfee li nga xam ne moom laa la yóbbantee woon kon nga xam ne way jur dañ koy ñaanal ñaanu doom ci way jur dafay yokk doom waaye dafay yokk yi tamit way jur waaye nag doom saa yu arrêté di ñaanal way juróom rek wërsëgam commencé tak kon nag sirru am wërsëg mu ngi noonu Baay wax na nag ne saa yoo julle del def juróom benn qul allahu ahad def ko hadiya sa ñaari beneen hadis yonent bi sallallahu alayhi nee na iza jamaa ahadukum amraatuhu falyatanaha hatta tanqadiya haajataha kama yuhib an yuqdiya haajatahu lislaam dafay jàngale wax na la léegi naka la ñuy lekkee wax na la léegi booy ëbbali naka nga war a def wax na la léegi soo jiitee ay mbooloo nan ngay def wax na la léegi jigéen ju baax ju toppatoo alalu jëkkëram di ko financé fi mu ko war a financé lam cay am ci yiw ak la ca jëkkër jay am wax na la ko léegi wax na la itamit mbon lan lay jural nit lislaam dafay jàngale waaye dafay yar yonentu wax na ci hadis bii ne bu ngeen àndee ak seen soxna yi bu ngeen di sëy ak ñoom mu ne bu leen faj seen aajo rek fàtte ne ñoom yi dañoo am aajo bi ngeen am ndax ñaari way dencante plus la ak moyen ñoom ñaar ñoo mën a ànd lii dox mën a dox waaye bul def rek li nga bëgg am nga ko yow góor nga bàyyi soxna si fekk amagut moom li mu bëgg bànneex bi c'est partagé cinquante cinquante la war a doon kenn ku nekk da nga war a am sa wàll waaye nekkul ne rek yow ku góor ki yaa war a am sa wàll boo amee sa wàll pare nga ci déedéet boo amee sa wàll pare woo ci nekkal ak soxna si ba am wàllam li waral loolu mooy dafa amoon ci sahaaba yi ñoo xam ne dañuy ñëw ci seen soxna yi ànd ak ñoom rek bu ñu amee luñ bëgg bàyyi soxna yi ba soxna yi mujj di ñëw ci yonent bi di ko ko jooytu ne ko ñu daal suñu suñu jëkkër yi ñoom seen bopp rek lañ yëg lijjanti ñu ndax li ci góor ak jigéen bokkul góor mooy gën a gaaw a am bànneex ka jigéen léegi nag mu ne leen nag loolu na ngeen ko bax su ngeen àndaat seen soxna yi bu ngeen amee seen bànneex fexe leen ñoom it ñu am seen bànneex parce que li tax ñu boole leen mooy kenn ku nekk am bànneex beneen hadis yonent bi sallallahu alayhi na mawtaakum faxmidu basara fa albasara yatba'u ruuha wa xayran fa inna tu'minu ala ma yaqulu ahlal mayti yonent bi sallallahu te wee ku génn àddina muy seen mu génn àddina ku génn àddina ay bëtam day xulleeku yonentu nee na na ngeen muur bët yi na ngeen wàccee bët yi mu mu mu tëju parce que bët yi dafay xool rooxo bi buy dem xëy bu moo tax muy xulleeku noonu boo ñëwee fekk borom mu tëdd bët yi day xulleeku parce que dafay topp bët yi dafay topp rooxo bi yonent bi nee na su loolu amee na ngeen wàccee bët yi su ngeen paree ngeen wax ci seen niw yi lu baax ndaxte malaaka yi dañuy gëm li nga xam ne mbokk niw gi wax nañu ko moo tax nit lu mu bon bon su deewee rek wax ay baaxam xuulu li mawtaakum husnan wax leen ci seen niw yi lu baax amul benn niw bu amul mbon waaye na ngay jël mbon yëpp pakete ko sànni ko géej te ngeen di waxal niw bi lu baax fi ngeen taxaw di ko seedeel kenn ku nekk lam xam ci moom ci lu baax na ko wax lam xam ci moom ci lu bon na ko noppee ndax kenn ku nekk lañ la xamal buñ la ko waxalee fi nga tëdd ci jaag bi ci buntu jàkka ji bu ñu waxee lenn ci say mbon rek waa dëkk ba mën nañoo daw bay la ndax mbon yi nga xam ne niiw bu tëdd bu nekk rek te daal nag mbon moo xam ne dégg nga euh, buñ ko waxoon waa ñi koy julli dañuy daw waaye dañuy wax ne kon jarul sulli ñu yu bon yi wax leen yu baax yi rek xoolu yaa ngi dégg xayran fa inna al malaikatu tu'minu ala ma yaquluna alal mayti waaw malaaka yi dañuy gëm li nga xam ne ñooñ niw yi maanaam mbokki niw gi moom la ñuy moom la ñuy wax waaye tey Sénégal gi ñu ne ku fi sa mbokk dee buñ tegee baraad ay baraada lañuy ñuy a teg ay mbana commencé débat ci moom commencé na carrière am début fin lañ ca xam yëpp ñu commencé koo souligner da ngay da ngay dem ci dëj di dégg ñuy wax ci ku dee ki loo xam ne da nga naan kii est-ce sax dee na ndax bi muy dund sax daawuñ wax daawuñ ko waxal lu ñaawee noonu mu dee ñu di ko waxal lu ñaawee noonu dëgg-dëgg ñaaw na te kenn ku nekk si ñun bëgg na bu deewee ñu waxal ko lu baax kenn ku nekk bëgg nga sa baay bu deewee ñu waxal ko lu baax sa yaay bu deewee ñu waxal ko lu baax sa mag bu deewee ñu waxal ko lu baax ba yow sa jëmm ji soo deewee ñu waxal la lu baax kon nag ku dee ku nekk na ko waxal lu waaye segam ku dund moo ëpp njëriñ ku dee te doo wax ci ci ku dund lu baax bu dee boo waxee ci moom lu bon yey yey na maanaam wàcc nga parce que yow lu muy dund amal la njëriñ lu muy dund amal euh, euh, société bi njëriñ waxaloo ko lu baax waxantuma laa yaa ngi dégg su su deewee Sénégal dëkk bu naqaree dund maanaam dëkk dëkk bu naqaree dundee la ba pare nekk dëkk bu neex a deewee loolu tamit am na fi dëkk bu naqaree dund la booy dund kenn du la xam booy dund kenn du la considéré kenn du xam sa qualité kenn du xam li nga man kenn du xam li nga xam kenn du la nangul kenn du la respecté kenn du la bëgg waaye soo deewee rek ñu commencé souligner moom de ku baax la moom de ku defoon nii la moom de ku defoon naa la yaa ngi dégg commencé souligner yoo xamante ne dëgg dëgg gisoon nañ ko ci yow bi ngay dund te ñu la si doon contre ku ci mel ni si Lamine Niass ba muy dund amul coono gi mu dajut waaye bés bi mu deewee ñii ñi ñi nga xamante ne ñoo doon wax ci moom lu ñaaw ñëw ëlbatiku encore di wax ci moom lu bon am na seede yoo xamante ne ba mu génn àdduna bi mu gisee ñooñu ñu seede ko damaa tiit dama waaru parce que ni ñu meloo nag moom ba muy ba muy dund yaa ngi dégg moo tax may la Sénégal dëkk bu naqaree yaa ngi dégg dundee la waaye dëkk bu neex a deewee la balaa ñu laa jox sa gëdd rek di la rendre hommage nga faatu nga dee jóge fi amatoo amatalo amalatoo société bi njëriñ ñu soog a nag souligner say say yu baax kon nag nañuy wax lu baax rek bu ku dund ak ku dee moo ci bokk yam nañuy wax lu baax rek yonent bi sallallahu nee na izaa hakama alhaakimu fajtahad fa asaaba fa lahu ajraani wa izaa hakama faxtaa fa lahu ajrun waahidun lii mu ngi wax ak attekat yi mu ne képp koo xamante ne dangay ngay atte nga góor góorlu sa kéemtu laay kattan ba def atte bi ni mu ni mu war a demee ni mu xelloo mu ne am nga ñaari pay góorgóorlu bi nga góorgóorlu ak dëgg bi nga atte waaye su fekkee ne da ngaa atte euh, nga juum ci pay gi ci atte gi nga juum ci mu ne benn pay ngay am atte yombut jugement yombut juge yombut nekk ko yombut yàlla tànn la ci biir nangami million ngi doomu aadama ñi ne la ñii ku ci def ñaawteef yaa ko war a juge loolu yombul dëgg-dëgg il faut nga nekk nit koo xam ne ku lucide nga ku set nga ku ragal yàlla nga ku maandu nga ku jub nga yaa ngi dégg waaye dëgg-dëgg kuy wakkirlu ci yàlla ngay doon wute naa nag suñu juge yi léegi nga xam ne majorité parti bi dañ leen di guerre dañ leen di jënd ñooñu moom taxut ñuy wax yaa ngi dégg waaye ak lu mën a demee rek atte moom dafa metti ndax problème boo atte fii boo yomal xiyaamee di nga ko attewaat te ñun suñu réew bu fekkoon ne réewi jullit la sax ñu mën a wax waaye ñu réew yi nga xam ne pays laïque lañ koy tuddee seen luwaa yi ñoom ñoo ko teggal seen bopp tegal ko seen bopp bàyyi fi luwaa bi fi yàlla teg ñooñu moom juge yooyu moom ñu ngi seen loxo mu ngi ci yaa ngi dégg seen loxo fa mu nekk xaw naa tilim lool lool lool lool bu leen yàlla dimbalewul mën naa doy waar yonent bi sallallahu wa sallam nee na isa xatamal abdul qur'ana salla alayhi anda xatimihi sittuna alfi malakin nit su jàngee alquran ba jeexal ko wàccee kaamil comme ni ngeen koy waxee mu ne dana julli ci moom juróom benn fukki junni malaaka nit bu jàngee alquran ba jeexal ko rek saa yu ko jeexalee rek juróom benn fukki junni malaaka daañu ko ñaanal yàlla fi ñuy jeexale yonent bi sallallahu alayhi nee na iza xaraja ahadukum ila safarin fal yuwaddi iqwaanahu fa inna allaha jaa'ilun fi du'aihim barakatun mu ne kenn si yéen bu génnee di tukki na taggu ay mbokkam parce que ñaan yi ko mbokk yi di ñaanal yàlla daf ci def barke ngay génn ne sa yaay wala sa papa wala sa soxna wala sa doom wala sa borom maa ngi génn mu ne la demal ci jàmm nga ñëwaat ci jàmm mu na yàlla daf ciy def barke moo tax bu ñuy génn bu ñu xeeb kenn nañ ne diw maa ngi dem bërëb sàngam diw maa ngi génn te ñëw loolu eh, ñaan bi mu lay ñaanal waa baax na yàlla na nga dem ci jàmm ñëwaat ci jàmm loolu rek jaar na lu nekk waaye ñenn ci ñun dañuy xëy rek génn seen kër yi duñu tàggu ndey duñu tàggu baay duñu tàggu jëkkër duñu tàggu jabar yaa ngi dégg duñu tàggu sax xale bu ndaw tey boo doon génn jiili ndaw mi des ci kër gi wala soxna jaara lu des si kër gi sax war nga ko wax ne soxna jaara maa ngi dem boutique ba te ñëw wala maa ngi dem jam ñaajo te ñëw wala maa ngi dem Dakar te ñëw wala maa ngi dem kër oustaz te ñëw yaa ngi dégg mu ne la waaw waaw googu mu lay wax rek mooy demal ci ci jàmm nga dellu si waat ci jàmm waaye ñu bëri du ñu même cànq bi nga bàyyi si kër gi même booy bi ngay bàyyi ci biir kër gi ne ko maa ngi dem mu ñaanal la yàlla nga dem nga mën a dem ci jàmm ñu waat ci jàmm waaye duñu ko def ku tàgguwul doo tàggu sa ndey doo tàggu sa baay doo tàggu kenn jékki-jékki génn loolu lu la fa dal rek yow yaa ki nga xam ne yow yaa koy gàddu moo tax man su nit génnee tàgguwut ma du ma la du du ma la du ma la du ma la du ma la faale parce que damay xam ne yow xamuloo lu nekk ci mbóotab tàggoo xamuloo lan moo nekk ci sirab tàggoo war na booy génn nga ñëw ci kilifa gi ne ko maa ngi génn mu ñaanal la yàlla même bu dul kilifa sax ki nga dëkkal ne ko maa ngi génn mu ñaanal la yàlla wala sax bu dul loolu bu nit ñëwee sa ginnaaw ne ana diw mu mën a wax ne diw dem na ba def sàngam wala bu toogee ba sa heure ñëw jot gisu la mu woo la waaye boo ko defut loolu yëpp erreur mën na ca am nga génn am tolof tolof jël téléphone bi woote na diw ana diw nga ne diw fii la nekkoon loolu rafetul yonent bi salaa sallam nee nag bu kenn def loolu moo tax li ma leen wax sànq lislaam diinay éducation la diina bu am yar la hadis yi nga jàng bi nga ko tàmbalee ba léegi lépp mu lay teg yoon nag nga nekkee nit ku nitee nit dafa war a ci tous les ci fànn bu nekk ci lu nekk daf ci war a nitee te lislaam loolu mooy li ko tax a jóg wa ma zalika ala bi azizin salaamu aleykum wa rahmatullahi